wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain جعله الله أن اجتماعنا من أشد الاجتماع في القرون إنه اجتماع لوداع إنسان صالح عالم عامل بعلمه مجتهد ومجاهد في سبيل الحق وفي سبيل رفع كلمة الحق فقد رجلا حقا ما فقدت التجانية رجلا كان يعرف ما يقول عن التجانية كان يعرف كان يعرف ما يقول عن الشيخ أحمد التجاني كان يعرف ما يقول عن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وهو إذا تكلم عن الإسلام فهو حقا الإسلام وإذا تكلم عن المعارف فهو عين المعرفة وهو عين العلم وإذا تكلم عن المعرفة بالله وعن الطريقة فحقا هو صاحب بجدتها وهو عالم متعرب يعرف العربية أكثر مما يعرف هذه اللغة أهلها علما بنحوها وصرفها وجميع علوم التي تتناقل عليها اللغة العربية فهو الفصيح البديع المبدع الذي يعرف كيف يتعامل مع هذه اللغة علما ودينا ومعرفة وتربية وإرشادا فهو كان مثالا رائعا وقد فقد الإسلام وفقدت التجانية وفقدت الفائدة التجانية وفقدت السنغال وشباب السنغال وعلماء السنغال ندا حقا من الأنداد علما ندا من الأنداد معرفة ندا من الأنداد عملا ندا من الأنداد جهادا في سبيل الله ونشرا للعلم ونشرا لأركان الدين على أساس من الصحة على أساس من المعرفة الإسلامية الحقة ففقدنا ففقد السنغال هذا اليوم رجلا من أعظم رجالات السنغال في كل الميادين وهو بعلمه وبتواضعه مع علمه أيضا ذهب إلى كل بلاد العالم نشرا للعلم وتوضيحا لأركان الطريقة التيجانية وأنها ليست طريقة كما يقول البعض بدعة وإنما هي تفسير للقرآن الكريم وإنما هي تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو تفسير للدين لا أكثر من ذلك وكان يدرك هذه المعاني الصادقة في طريقته فتحمس لها رجلا قويا متينا لا يخاف مواجهة أي أحد ليتكلم معه في حقيقة الطريقة وفي صلاحية الطريقة وفي أن الطريقة ليست إلا إرشادا lil ummati walaysat illa irshaadan li ahli ilmi wa dawi albaab fa kaana bidalika masalan raa'ian yuqtada bihi fi kulli zamanin wa makanin wa laqad zahaba wa daraba masalan lilladina min baadihi أن الحياة جهاد وأن هذا الجهاد يجب أن يكون سنده العلم وأن هذا العلم يكون سند هذا العلم هو كتاب الله wa sunnati rasulihi wa ma yandaafu ilayha bada zalika min al ulumi almutafarriqati fa kaana aaliman bilquran kaana aaliman billugati alarabiyati wa kaana aaliman aydan wa musaqafan yacrifu ma yajri fi asrihi wa yataamalu maaha bikulli labaqatin wa bikulli zawqin wa bikulli macrifatin حقا رجلا جمع معاني الرجولة الشاذة معاني الرجولة القوية معاني الرجولة التي يعرف سر وجودها في هذا الكون وهو عبادة الله تبارك وتعالى ولكن ليست عبادة على جهل إنما عبادة على علم ومعرفة ففي القرآن الكريم ما يفسر أن الله تبارك وتعالى قال ما كيف تعبدوني وأنتم لا تعرفونني اعرفوني قبل أن تعبدوني fa xaqan Cheikh Ahmed badala juhdahu fi almaarifa walakin laysat kull almaarifa maarifa daqiqa haadifa qaadira ala naqli alqulubi min xaalatin ila xaalatin fama stamaca ilayhi axadun illa wastafada bima stamaca minhu xaqiqa salaasun min alshabab uridu an astamica ilayhim wa hum yatakallamuuna an tijaaniyati ahaduhum hada rajul alladi faqadnahu alyawm والرجل الثاني هو با التيجانية حقيقة أحب أستمع له أستمع له وهو يتكلم عن التيجانية وسادسهم هو ولدنا أحمد أحمد شيخ أحمد تيجان أيضا يتكلمون عن الطريقة وكأنهم بنات هذه الطريقة وكأنهم أبناء بيدتها يتكلمون عنها بعلم ومعرفة ولكن في تفاوت مع درجات في في في في في التوصيل مع درجة في التعبير والشيخ أحمد كان رجلا معبرا كان رجلا ذواقا كان رجلا عارفا كان رجلا يدرك حقيقة ما يعمل وغاية والإدراك هو غاية المعرفة لأن ممكن أن تعرف شيئا ولا تدركه بمعنى أنك لا تعلمه حتى الآن ولكن إذا علمت وأدركت ما, ما إذا عرفت وأدركت ما عرفت حقيقة فهذا هو غاية العلم وهذا هو المطلوب في العلم وحقيقة الشيخ أحمد كان رجلا دراكا فهاما رجل له لب باحث يبحث في كل دقائق المعارف يبحث في كل دقائق العلوم يبحث في كل دقائق المعرفة فأنا إذا استمعت إليه وهو يتكلم عن العربية أستمع إليه وأتمتع بهذا الذي أستمع أسمعه أسمعه معبرا أسمعه حقا يحيط بعلم ما يتكلم فيه إن كان تاريخا فهو تاريخ إن كان دينا فهو الدين إن كان معرفة فهو المعرفة إن كان إسلاما فهو الإسلام في كل المجالات العلوم فإذا تكلم فإنك تستمع ila rajulin yudriku ma yaqulu wa yaarifu ذهب وترك لنا في قلوبنا حزنا لفراقنا لفراقه حقيقة يوم حزن عظيم في نفوسنا جميعا لأنه كان مع الله ومن كان مع الله كان الله معه بعباده كان الله معه بقلوب عباده فحشر له قلوب عباده في هذا اليوم ليحزنوا عليه rahmatan min allahi wa rahmatan min allahi wa izharan wa ibrazan li makanatihi alazimati fi mahabbati fi mahabbatihi lillahi tabaraka wa taala wa fi mahabbati llahi lahu hatta hashara lahu كل هذه القلوب من كل مكان حزنا على فراقه ولكن فرحا ايضا على اننا جئنا ورافقناه الى مأواه الاخير ومرافقة هؤلاء إلى مأواهم الأخير فيه من الله ثواب وفيه من الله عز وفيه من الله مجد نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا كل ذلك ñu ngi tàggoo mbokk moo xam ne sëriñ bi mu ne ñu ngi tàggoo ak mbokk ne foo loo firee mbokk rek da nga fekk mu mu doon loo firee ak mbokk rek da nga fekk mu nekk ca loola da nga fekk mu muy ku bëgg mbokk di nga fa di ko fekk mu nekk ku bëgg mbokk xatalul mbokk ci diggante ay waajur ak ay deretam xatal mu ne xatalul ak mbokk ci diggante ay waajur ak deret waaye mi ngi ci yaatuwaayu lislaam mu ne moom dafay yaatal ak mbokk ci yaatuwaayu lislaam dafay yaatal mbok ci yaatuwaayu tariqati tijaaniya mu ne dafay yaakaaral mbokk itam ci tarixatu tijaaniya dafay yaatal mbokk itam ci faydatu tijaaniya mu ne dafay yaatal ak mbokk itam ci faydatu tijaaniya dafay yaatal mbokk itam ci jóg taxaw ngir liggéeyal mbokkam mu ne dafay yaatal ak mbokk ngir liggéeyal tarixa bi nga xamante ne mooy tarixa ci anaama tijaani di liggéeyal nit itam di liggéeyal ak nit ngir génn ak moom ak moom ci jafe-jafe nitam ci jafe jafe nitam yóbbu ko ci yaatuwaay yàlla ci yé yóbbu ko itam ci yaatuwaay yàlla. yóbbu ko ci yërmande yàlla. yóbbu ko itam ci yërmande yàlla. yóbbu ko ci yombalal yombalal ak mu ne mu yóbbu ko itam ci yombalal yàlla. kenn du toog déglu euh, Cheikh Ahmad. mu ne kenn du toog di déglu Cheikh Oustaz Ahmad Ba. ba mu jeex ba mu jeex. te nekkoo beneen nit. te nekkuloo beneen nit. ndax nit la koo xam ne. mu ne nit la ko xam ne. xam naa. xam na ne. ñett nit. mu ne xam na ñetti nit. damay bëgg. leen déglu bu ñuy waxtaan ci tarixa bi. mu ne dafay bëgg di leen déglu bu ñuy waxtaan ci tarixa bi. kenn ki Ahmed mii di ñu tàggu tey la. kenn ki Ahmed mii di ñu tàggu tey la. kenn ki Ahmed Tijaniya. mu ne keneen ki mooy Ababacar Tijaniya. kenn ki mooy Ahmed doomu Cheikh Ahmed. keneen ki mooy Ahmed doomu Cheikh imam kii so doomu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Niass. bu mu ne dañuy wute ci darajaay mu ne bu ñuy wax da xam ne lii ñuy wax ni dëgg-dëgg luñ xam la. ak bëgg ak bëgg. ak mbëggeel itam. ak zawq. ak zawq. ak jeex ci li ñuy wax. ak jeex itam ci li ñuy wax. xam ku ci ci ruqam yëpp. mu ne dañ koy xam itam ci luqam yëpp. booy déglu Ba. mu ne sooy déglu Oustaz Ahmad Ba. dafay mel ni moom moo sos tariqa da ngay dafay mel ne moom moo sos tarixa tijaan bi. xam xam sew bi ko xam. ngir xam bi nga xamante ne xam bu sew bi nga xamante ne xam na ko ci. xam góor yi nekk ci biir mu ne xam góor yi nga xamante ne dañoo nekk ci biir sa feeñ. ak góor yi nga xam ne def nañ ci biir tarixa bi. ak góor yi nga xamante ne def nañ ci biir tarixa bi. def boo xam ne. def boo xam ne. amul ku ci jëriñu te bokk amul kenn koo xam ne jëriñu ci jëriñu na ci te bokk ci tarixa bi képp koo xam ne bokk nga ci tarixa bi rek jëriñu ci ñu ci ci seen kàddu daf lay àggalil loolu mu ne daf lay yeggalil loolu ci waxin goo xam ne ci waxin goo xam ne du dugg ci sa xol day dugg ci sa biir xol te du tàggu sa nopp yi sax day du tàggu mbukk sa sa nopp yi dafay tëb rek agsi ci yow mu ne dafay tëb rek agsi ci yow loolu mooy xam-xam arabani mu ne loolu mooy xam-xamu arabani mu ne xam-xamu rabbaani moom du tàggoo ci ki muy ñëw mu ne dafay ñëw rek dugg yàlla may na Sidi Ahmad mu ne yàlla may na Sidi Ahmad ci zawq ci zawq fii tabliigi da ci jot ci jottali ci jottali ci jottali dëgg-dëgg néew na ku mel mu ne néew na ku mel ne moom ci loolu ci jottali mu ne bu la jottalee di nga dégg bu jottalee itam di xam jottalee di nga bu la jottalee di nga sawar. bu la jottalee di nga bëgg wuti xam-xam. mu ne bu la jottalee di nga bëgg a wuti xam-xam. boo amee xam-xam di nga bëgg a yokk. mu ne soo amee xam-xam itam di nga bëgg dem yokku ji. donc dundam yëpp jàngale rek. kon nag moom dundam yëpp jàng rek la rek la. jàngale ñu toll ci njàng. mu ne jàngale na ñi nga xamante ne dañoo toll ci njàng. fàttali ñi nga xam ne jàng nañ. mu ne di fàttali waxtu wu nekk ñi nga xamante dañoo jàng. ndax ñu xam mu ne nit am na xam-xam te taxawut fenn. xam-xam taxawut moom. moom ak moom rek. waxtu wu nekk nag. mu ne waxtu wu nekk rek. nga mën cee génne. nga mën cee génne yoo xam ne. da ngay jëriñ sa jamono. da ngay jëriñ sa jamono. bisu tey bii. mu ne ku xool tey bisu tey bii. fekkoon ne nit ki amul njëriñ pour xeet wi. bu fekkoon ne nit ki amul njëriñ pour xeet wi. kon dina jafe pour nit ñi daje. kon de dina jafe lool pour nit ñi mën a dajee nii. moo tax nga xam ne nit ñi yàlla rek lañ mën moo tax nga war cee xamee ne nit ñi yàlla rek lañ bëgg. ku leen ci yàlla rek lañ bëgg. ki leen di jëmee ci yàlla rek lañ bëgg. ku leen leeralal ci yoonu yàlla rek lañ mu ne ku leen di leeral ci yoonu yàlla rek lañ bëgg. ndax lan mu ne ndax lan. ndax yàlla wax ne. mu ne yàlla boo wax ne. ci làmmiñ yonentam. ci làmmiñ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ku nekkal yàlla yàlla nekkal. képp ku nekkal yàlla yàlla daf lay nekkal. yàlla dina la nekkal. mu ne yàlla dina la nekkal. nekkal boo xam ne. nekkal boo xam ne. mbóot la ñun xamuñu ko. mbóot la ñun xamuñu ko. waaye dina la nekkal nekkal boo xam ne. waaye dina la nekkal ci noo xam ne. nekkab zahir la. nekkab comme bii ñu gis tey. comme bii ñu gis tey. xol ñu jógee fu nekk. mu ne xol yii nga xam ne yàlla màng na ko ñu jógee fu nekk. ngir bis bii. ngir bis bii. ngir tàggoog mbokk mi. ngir tàggu seeg mbokk mi. dëgg-dëgg kenn mënu koo defal nit. ne dëgg-dëgg kenn mënu koo defal nit. yàlla rek ko mën a defal jaamam yàlla rek moo ko mën a defal jaamam. waaye jaamam bu ko bëgg. mu ne waaye jaamam bi ko bëgg. moom itam mu bëgg jaamam. moom moom waxtu wu nekk mu koy won ay ay daraja. won na ko darajaam. mu ne won na ko darajaam. Oustaz Ahmad bu toogee di waxtaan. mu ne Oustaz Ahmad Ba su toogee di waxtaan. doo bëgg mu mu ne doo bëgg mu noppi. doo bëgg mu jeexal. doo bëgg itam mu jeexal. waxtaan. mu ne ndax fa muy teg waxtaanam. du la la koy indilee. mu indi la ni gën a soree itam noonu la la koy indilee. mu dal di la jox ci façon boo mooy sax dañ koo xamoon. mu ne dafay foog ne da ngay foog ne sax yow da ngaa xamoon li muy wax. waaye loolu mooy xam-xam. mooy indi xam-xam ci nit ñi. da ngay wàcc ba nga xam ne. da ngay wàcc ba nga xam ne. loo wax rek dafay mel ni ñoom dañ ko bëggoon a. mu ne booy wax itam dafay mel ne loolu dañ ko bëggoon a xam. dañ ko bëggoon a wax. dañ ko bëggoon a wax. mel ne dañ koo xamoon rek. mel ne dañ koo xamoon sax ba fàtte ko. te fàtte ko mu leen koy fàttalil mu ne loolu la yàlla santaane mu ne yàlla moo ñu wax ne fa zakir fàttalil korom ko nag boroom xam-xam bu toogee dafay fàttali waaye nag fàttali boo xam ne. dafay ànd ak kaddu yoo xam ne. nopp yi dinañ ko ñeme. nopp yi danañ ko ñeme. xol yi dinañ ci dal. xol yi tamit danañ ci dal. benn baat boo xam ne dina jam benn nopp. mu ne wax boo xam ne wax boo xam ne day jam benn baat baat boo xam ne day jam benn nopp. ba xam jam nopp nekku ci. ba nga xam ne jam nopp nekku ci. ba xam luy xasan ci xol nekku ci. lu nga xam ne itam liy xasan ci xol tamit nekku ci. dafay leer nañ rek. dafay leer nañ rek. ndax boo leeralee sa bopp. mu ne boo leeralee sa bopp. dal jokku ca. dal di jokku ca. yàlla mooy leeru kaw mooy leer kaw mooy suuf. leer ak yàlla gu nekkoon ak nag leer ak yàlla gu nekkoon ak ñun la. daan nañu leeralal ngir yàlla. daan nañu leeralal ngir yàlla. bëgg nit. bëgg nit. mbokkam. bëgg mbokkam. foo ko fekk mu toog rek da foog ne foofu la dëkk. mu xam ne da ngay foog ne sax foofu la dëkk. da ngay foog ne ñii ñooy ay mbokkam. da ngay foog ñooy ay mbokkam. te fekk évidemment ñooy ay moom xam na mbokk li muy tekki. noonu moom xam na lan lay mbokk di tekki. ni ko yàlla tekkee xam na ko. ni ko yàlla tekkee moom xam na ko. noonu ko bëgg a dundee ak la ko di bëgg a dundee ak ñëpp. baax ba dayoo ba dayoo baax. mu ne baax ba dayoo baax. dëgg-dëgg. mu ne dëgg-dëgg. xam naa nit koo xam ne. mu ne ñu ngi xam nit koo xam ne. man xam ci xam naa ci moom koo xam ne. mu ne moom xam na ci nit nit moom nit koo xam ne. jafe na nit na nit di ko xam. jafe na nit taseeg moom. jafe na itam nit taseek moom. waaye yàlla miy maye nag. waaye nag yàlla mi maye nag. moo jël rek maye. moom moo jël rek maye. yàlla may. yàlla moo ñu may. Oustaz Ahmad. moo ñu mayoon Oustaz Ahmad. ñu nangu ko ñu. ñun itam ñu nangu loolu. seedeel yàlla ci bés bi ñu ngi seedeel yàlla ci bés bi ne li ñu mayoon gërëm nañ la. ne yow yàlla lii ngi ñu mayoon gërëm nañ ko de. nangu nañ itam. nangu nañ itam. boo yóbboo itam. boo yóbboo. nangu nañ. nangu nañ. sa atte. sa atte. topp nañ ko. topp nañ ko. amul dara lu ñuy rëccu. amul dara lu ñuy rëccu. amul dara lu ñuy jaaxle. amul dara itam lu ñuy jaaxle. ndax nit ku teral fii ci àddina yow nit koo teral fii ci àddina la. teraanga jooju jooju du dagg mukk ba ba ngay taseeg moom. ba ba ngay taseeg moom. ba ba ngay jàkkaarloog moom ba ba ngay jàkkaarloog moom. ba ba ngay àgg ci boobu. ba ba ci bis boobu. yàlla na ko yàlla àggali. yàlla na ko yàlla yeggale yaa rabbi. yàlla na ko yàlla àggali foofu. yàlla na ko yàlla yeggale foofu. ci alaaxira. yàlla taraangaam doon taraangay buur yàlla. mu nekk taraangay buuru alaaxira. mu ne foofa la buur nekk. foofa la nguur nekk. foofa tamit la nguur nekk. yàlla na ko yàlla boole te foofa. ñi mu bëggoon fii ci àddina. li mu bëggoon fii ci àddina. bëggoon ñi bëggoon fii ci àddina. ñoom fii. ñoom rek la nekkaloon fii. mooy yàlla. mooy yàlla. mooy yonent yàlla Muhammad mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy Cheikh Ibrahim mooy Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne ñooñu ñoo nekkoon ay wéttalam ñooñu itam lay wéttal li koo fële mu ne fële mu jëm itam ay wéttalam rek la fay fekk mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax al mar'u ma'a man ahabba ku nekk mu ne nit ku nekk ëllëg ca alaaxira kam sopp moom rek lay dëkkal moom ñii rek la soppoon te wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom du deñ mu ne nit ku ñaw nit ku am xam-xam nit ku xam tamit ni muy jottalee xam-xam mu ne am xam-xam di ko jottali yomb de surtout nag nga di ko jottali. surtout nag nga di ko jottali. jottali boo xam ne. jottali boo xam ne. yaa ngi xam ne am na ñu lay déglu. yaa ngi xam ne am na ñu lay déglu. déglu am na ci ay borom xam-xam. te ñi lay déglu ci ñu lay déglu itam am na ci ñoo xam ne ay borom xam-xam lañu. nga sàmm seen daraja. nga sàmmaale itam seen daraja. nga yëg ne am na ñu lay déglu te xamuñ. nga yëg ne itam am na ñu lay déglu te ñoom ñu xam lañ te xamuñ laa te xamuñ. nga bëgg ñu xam. nga bëgg xam. ñëpp nga wax ak ñoom. ñëpp dem nga wax ak ñoom ci sa. ci sa biir sa biir darsu mu ne loolu ku ne xam na ne yàlla moo koy jagleel jaamam te loolu nekkoon na ci Ahmad Ba mu ne moom toog nag moom ay jataay su ma waxee ba mu jël di jël parole mu ne su sëriñ bi waxee ba ba moom oustaz di jël parole du moom dutul bëgg a demati dafay bëgg di toog di ko déglu mu ne dafay dégg dégg lugatil bi fasaxatiha mu ne lugatil arabiya bi fasaxatiha daf koy dégg mu ne dafay dégg lugal arabiya lugal arabiya ci xam-xam bi mu làmboo ci xam-xam nga xam ne moom la làmboo damay déglu dafay déglu tasawuf tasawuf bi nekk ci moom bi nekk ci moom ci sellal nit mbaaxal nit ci sellal nit ak baaxal nit dafay koy déglu ci ay waxam te daf koy wax ci kaw li mu waxoon sànq rek. xam. mu ne lu xam la moom oustaz Ba. xam ba matal mu ne xam gim ko xam dafa. moo tax mu ne moo tax. déglu ko ba mu ne déglu ko bànneex la. waaye jàngale itam. waaye itam jàngale itam. yàlla xañ mu ne yàlla xañ nañu ko tey. jëmmam la yóbbu. jëmmam waaye li mu doon def lépp fi des. waaye mu doon lépp mu fi des. bàyyam mi ko yar. mu ne bàyyam mi ko yar. jàngal ko mu ngi nii toog. ay rakkam mu ngi nii toog. ñu ngi nii toog. xam nañ ne. xam nañ ne. am nañ mag boo xam ne. amoon nañ mag joo xam ne. ñoom rusuñ mu nekk seen. mu ne ñoom rusuñ mukk kii nekk seen mag. rusuñ mukk ànd ak moom. mu ne rusuñ mukk itam di ànd ak moom. rusuñ mukk topp ko. mu ne rusuñ mukk itam di ko topp. rusuñ mukk déglu ko. mu ne rusuñ di ko déglu. mu ne loolu ku nekk xam ne ne loolu moom tànn yàlla la. jógee ci ay yoo xam ne di jógee itam ci ay waajur yoo xam ne. xam nañ ni ñuy yaree seen xam nañ seen doom. ak liñ ko war a jàngal. yàlla na yàlla yokk darajaam yaa rabbi. yàlla na ñu yàlla wuutu. yal na ko yàlla wuutu. ci ñun. ñun tamit. ñun tamit. yàlla na ñu yàlla wuutu ci moom. bëggoon def yëpp yàlla ko ëppale lépp lu ñu bëgg luñ ko bëggoon a defal yàlla ñu ëppale yàlla ko ko a yàlla na ko yàlla teeroo yaa ñu bëggaloon itam lim ñu bëggaloon itam yàlla ko ko ëppale yàlla ko ko ëppale yàlla na ko ko yàlla defal ko ko yàlla defal yaa rabbi ci mbooloo mi ci mbooloo ak ñun mbooloo mi yëpp rawatina njabootam njaboot rawatina nag njabootam rawatina ay doomam ak i rakkam rawatina ay doomam ak i rakkam surtout ñooñu nga xam ne surtout nag ñooñu nga xam ne bàyyee na leen mu ne bàyyee na leen risaala. risaala bu ko jar. mu ne risaala bu ko jar la. risaala xam-xam. risaala xam-xam. risaala jëfee mu ne risaala sa xam-xam. risaala diine. risaala diine. risaala xam diine. risaala xam diine. risaala tasawuf. risaala tasawuf. Eh, mu risaala xam lan mooy tasawuf. tijaniya mu ne risaala tijaniya nga xam lan mooy tijaniya nga xam itam lan mooy tijaniya lan moo ko tax a jóg lan moo ko tax a jóg pour nit pour nit mu ne risaalatu faydatu tijaniya lan moo ko tax a jóg pour nit pour nit mu ne loolu lépp nag oustaz ba daf ko xamoon daan ko waxee dan ko jàngal nit ñi ñemee jàkkaarloo ku nekk ñemee jàkkaarloo ku nekk bu ko ooyee télévision mooy gën a mooy gën a dafay sax gën a ko mu ne buñ saa ko wooyee ci télévision ba moom sax dafay gën a ñeme ci ki nga xamante ne moom la moom moo ko woo. mujj sax mu ne kooku sax dafay mujj di dellu ginnaaw. mu ne loolu lépp nag. ndax xam mu ne xam. dëggu dëggu. bëgg ji nga nekk bëgg lim nekk. mu ne loo loolu moo ko may lim nekk. yàlla nañu ko yàlla may ñun ñëpp. ci njabootam yàlla na ko yàlla wuutu ci njabootam yaa ngi nii mu ne addina nag mu ngi nii am xam-xam terewuta mu ne am xam-xam terewuta dee mbaax terewuta dee mbaax itam terewuta dee am daraja terewuta dee mu ne am daraja itam tax terewuta dee ñàkk daraja terewuta dee ñàkk daraja itam terewuta dee ndawe mu ne ndawe itam terewut a dee. mag doon mag itam du ko teree dee. ñëpp foofu lañ jëm. mu ne ñun ñëpp itam foofu rek le jëm. te ku nekk yàlla wax na ne. mu ne ku nekk rek yàlla wax na la. dinaa tase ak yow. dinaa tase si ak yow. wax ak yow. wax ak yow. te yow xam nga te man xam naa. yow xam nga man xam naa. mu ne waxtu woowu. nañ ko sàmm ne xam ne ñun ñëpp ci lañ. nañ ko sàmm bu baax te ñun ñëpp xam ne ñun ñëpp ci lañ li yàlla gën a bañ ci jaam bi. mu ne li yàlla gën a bañ ci jaam bi nag. mooy mu tooñ moroomu jaam. muy jaam bi tooñ moroomu jaamam. di ko jalgati. di ko jalgati. lu la neex nga wax. lu la neex rek nga wax ko jaam bi. sa làmmiñ lu neex nga wax. mu ne nga moom sa làmmiñ lu la neex nga wax ci. te ne. te ne. yàlla wax na ne. yàlla wax ne. amul kaddu guy génn. amul benn kaddu buy génn. lu dul ñaari malaaka lu ñaari malaaka ñu ngi taxaw. di ko njëkkalante. di ko njëkkalante. di ko bind. boo demee ci kanam yàlla. mu ne nag boo demee ci kanam yàlla. yàlla ne la malaaka yaay li malaaka yi bind ci yow mu ngi nii. mu ne yàlla di la wax ne la yow malaaka yi liñ bind ci yow mu ngi nii. waaye terewul maa ngi teewoon tamit. waaye terewuloon na tamit maa ngi teewoon ci bi ma ko bi mu leen bi muy bind lii. biñ koy bind maa ngi teewoon. biñ koy bind man maa ngi yàlla maa ngi teew. maanaam dara nëbbatul jaamu yàlla dara dara nëbbatul jaamu yàlla. mu ne dara nëbbatul jaamu yàlla bi. ci kanam yàlla ci kanam yàlla. yàlla may. kon nag yàlla nañu yàlla may taxaw. taxawaay boo xam ne taxawaay boo xam ne. taxawaayu defar la. taxawaayu defar la. taxawaayu baaxal la. taxawaayu baaxal la. taxawaayu bëggante la. taxawaayu bëggante la. taxawaayu dimbalante ngir yàlla. taxawaayu dimbalante ngir yàlla. taxawaayu gërëm suñuy waajur. taxawaayu gërëm suñuy waajur. nga xam ne moo ñu teg ci yoon wii nga xam ne moo ñu teg ci yoon wii nga xam ne ci lañ ne. ku nekk gërëm na ko ci rek gërëm nga loolu ci sa waajur. ku ku nekk kontaan nga. ku nekk boo defee sa laazim suba. mu ne ku nekk boo defee sa laazim suba. da ngay kontaan da ngay kontaan. boo defee bu ngoon da ngay kontaan. boo wasifa itam da ngay kontaan. mu ne loolu yëpp na kontaante boobu. lan moo ñu ko may ci suñ xol bi. su ci bëgg yàlla nekkul woon duñ ko su ci bëgg yàlla nekkul woon duñ ko mën a taxawee. duñ ko mën a kontaanee. duñ ko mën a kontaanee. yàlla mi ñu nag. yàlla mi ñu may loolu nag. nee na wutuma ci yéen dara mu ne moom yàlla wutul ci ñun dara lu dul ngeen gërëm ma lu dul jàmm bi gërëm boroomam alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñëpp nañ wax baatu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mu ne waxtu baat boobu suñ ko waxee yàlla yokkuñu soxla nañ yokkaay lool. kon te ñun soxla nañ yokkaay lool ci suñ jamono bii. soxla nañ ko ci société bi ci nii. soxla nañ ko ci société bi ci nit ñi ci nit ñi soxla nañ ko ci économique bi soxla nañ ko itam ci économie bi soxla nañ ko ci am jàmm soxla nañ ko itam ci am jàmm soxla nañ ko ci wéttalante soxla nañ ko itam ci wéttalante ku nekk ñeme sa morom ku nekk di daal di ñeme sa morom ku nekk óolu sa morom ku nekk daal di wóolu sa morom ku nekk bëgg sa morom ku nekk itam daal di bëgg sa morom bu boobaa dara du des ci suñ kanam su boobaa dara du des ci suñ kanam du liggéey rek lu dul liggéey rek. te yàlla mu ne bu ngeen liggéeyee ma ma ma jox leen. yàlla moo ñu wax ne bu ngeen liggéeyee rek ma jox leen. waaye ci kaw sart yooyu. waaye nag ci kaw sart yii. waaye bañante. bañ a bañante. xastante. baña a xastante. wuññi wante. bañ a wuññi wante. saaga wante. bañ saaga wante. da nga ne loolu yëpp da nga def pour tabax. nga ne loolu yëpp da nga ko bëgg a def ngir tabax. xaw ma tabax boobu. man taxawee. waaye nag yàlla moom. waaye nag yàlla moom. ay mbootam moom rek ko xam. ay mbootam moom yàlla moom rek moo ko xam. lu nekk rek ci lay jëlee li muy defaree. lu nekk rek ci lay jëlee li muy defar. ci ñu baax ñi. ci ñu baax ñi. lay yokkee mbaax. ci ñoom lay yokkee mbaax. ci ñu. ci ñu. ñi nekk ci safaan. ñi nekk itam ci safaan. ci lay jëlee li muy baaxal. ci muy jël ci lay jëlee li muy baaxal. yàlla nañu yàlla defal noonu. yàlla nañu yàlla defal loolu yaa rabbi. yàlla yàlla xaree ko aljanna. yàlla na ko yàlla xaree aljanna yaa rabbi. yàlla yëkkati darajaam. yàlla na yàlla yëkkati di darajaam. yàlla na ko yàlla wuutu ci njabootam. yàlla na ko yàlla wuutu ci njabootam. xale yi. seen baay a ngoog seen mag a ngoog mu ne xale yi seen baay a ngoog seen mag a ngoog am ngeen royukaay am ngeen royukaay soxlawu leen uti roy feneen mu ne soxlaween wute soxlawu leen duy wuti royukaay feneen royukaay la ci lu nekk mu ne royukaay la ci lu nekk royukaay la xataa tawaadu royukaay la ci mu ne xataa tawaadu moom oustaz royukaay la ci doo doo ko gis mukk ba gis ne borom xam-xam bu rëy bi may dégg ngi nii. mu ne doo ko gis ba nga ne borom xam-xam bi ma doon dégg mu ngi nii. feeñalu ko ci jikkoom. feeñalu ko ci jikkoom. feeñalu ko ci colaayam. feeñalu ko itam ci colaayam. feeñalu ko xataa ci waxtaan aade. mu ne feeñalu ko ci xataa sax ci waxtaanu aadaam. waxtaanee waxtaan aade rek lay wax comme ñëpp. mu ne waxtaanu aada rek lay wax comme ñëpp. toogee ba micro bi toog nit ñi toog. mu ne waaye nag bu toogee ba micro bi toog. nit ñi toog ba nit ñi toog. ah boobaa leneen ngay gis. mu ne su boobaa dëgg-dëgg leneen rek ngay gis. leneen ngay gis. leneen ngay gis. li nga bëgg a xam yëpp di nga ko xam. mu ne li nga bëgg a xam lépp di nga ko xam. li nga bëgg a dégg yëpp di nga ko dégg. li nga bëgg a dégg yëpp di nga ko dégg. te doo tayal. te doo tayal. doo yàkkamtee jóg. mu ne doo yàkkamtee. lépp taranga yàlla la. mu ne loolu lépp nag taranga yàlla la. yàlla sotti na ko ko. mu ne yàlla sottil na ko ko sottil na ko ko te yàlla du joxe teraanga nangu ko te mu ne yàlla du joxe teraanga mukk di ko nangu seen borom gedd rek xanaa seen borom nangu nangu ko loolu na gedd gedd loolu waaye waaye nag yàlla na teraanga nangu ko mu ne yàlla joxe na teraanga di ko nangu loolu moom amut mu ne loolu moom amul te kii waaye nag kii tey bisu tey bii bisam tey bii ak taarix yi passé yëpp taarix yi nga xam ne dafa passé yëpp benn waaye man oo Amérique mu ne benn waay mu ko doon loo ca Amérique. ne ma dañ ko doon xaar mu vingt 27 bii di ñëw. mu ne dañ ko doon xaar ci le 27 bii di ñëw. pour ñu defal ñu conférence. pour moom mu ñëw defal leen conférence. ñu ngi nekk ci ñu ngi nekk ci waajtaay. mu ne ñu ngi nekk ci waajtaay. xabaar bu métti bii ñëw wàcc. mu ne xabaar bu métti bii ñëw wàcc suñ mi ko def. mu ne wante yàlla mi ko def. yàlla nañu yàlla wattal. yàlla nañu yàlla wattal yàlla. ay rakam. mu ne yéen ñi nga xam ne yéen ay rakam. préparé leen pour defi conférence boobu. mu ne préparé wu ngir defi conférence boobu. boobu Amérique doon ko xaare. mu ne boobu nga xam ne nag Amérique da ko doon xaare. na kenn ci yéen dem defi ko. mu ne na kenn ci yéen dem defi ko. ndax xam naa ne mën ngeen ko. mu ne xam na ne yéen mën ngeen ko. ndax benn néeg bi rek mu ne ndax benn néeg bi rek la. benn baay bi rek la. benn yaay bi rek la. benn bi rek la. dëkkuwaay bi rek la. lu ci génn rek mën naa génn. mu ne lépp lu ci génn rek mën naa génn. mën naa génnaat. mën naa génnaat. yal na yàlla yëkkati leen. yàlla na leen yàlla yëkkati yaa yàlla taxawu leen. yàlla na yaa rabbi. yal na leen. yàlla barkeel yaa rabbi. dem na waaye yàlla bu mu mu ne dem na waaye yàlla bu mu yal na ko yàlla wutu ci ñun yal na may ñu wéttali koo yàlla yal may ñu wéttali koo yàlla yal nañu yàlla may ñu bëgg yàlla yal nañu yàlla may ñu bëgg yàlla yal nañu yàlla may ñu xam yàlla yal yàlla may ñu yàlla may ñu nangul yàlla yal nañu yàlla ñu nangul yàlla yaa ji jafe na mu ne jamono ji jafe na mu ne jamono ji jafe na ñi bëri nañ ñu ñuy coow ñu coow waaye yàlla rek yàlla rek mën lu nekk. mu ne yàlla rek moo mën lu nekk. yàlla nañu may jàmm. yàlla nañu yàlla may jàmm yaaru. yàlla nañu may am-am. yàlla nañu yàlla may am-am. lu bëri ci coow ñàkk rek la. mu ne lu bëri ci coow ñàkk rek la. ñàkk dañoon rek. mu ne su ñàkk dañoon rek. Sénégalais kenn gënu ko ci àddina bi. mu ne Sénégalais moom kenn gënu ko ci àddina bi. waaye ñàkk mooy noonu borom. waaye nag ñàkk mooy noonu borom. waaye ku ñàkk nag da ngaa war a liggéey pour yëkkati ñàkk googu. mu ku ñàkk da ngaa liggéey ngir yëkkati ñàkk googu. amaguñ ay industrie yu mag. mu ne amaguñ ay industrie yu mag. waaye am nañ ay suuf am nañ ndox. waaye am nañ ay suuf am nañ ndox. buñ dundal suuf si rek. buñ dundalee suuf si rek. ak ndox mi rek. danañ gis ne ñoom ñëpp a yem dinañ gis ne ñoom ñëpp ñoo waaye su fekkee defuñ dara waaye am rek di la neex nga ko nu la dara mu ne loolu du suñu suuf yi bay ko mu ne nañ ci suñu commerce bu ndaw boobu di ko dundal nañuy di ci dundal bu kenn xeeb dara bu kenn xeeb dara ndax li ngay xeeb mu ne li ngay xeeb asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum mun ngeen a xeeb dara fekk yiw wu bëri la ci yàlla def mu ne mën ngaa xeeb dara fekk yiw bëri moom ma nekk foofu bu kenn xeeb benn liggéey bu kenn xeeb benn liggéey nañ liggéey rek nañ liggéey rek nañ liggéey yëkkati suñu réew nañ liggéey ngir ñu yëkkati suñu nañ liggéey ngir yëkkati suñu bopp nañ liggéey nañ liggéey xam ne xam ne réew mu mën a bokk ci àddina bi la mu réew mu mën a bokk ci àddina lañu ndax lan mu ndax lan gis nga yàlla boole na ko ci réew yi nga xam ne. mu ne yàlla def koo boole ci réew yi nga xam ne. nit ñi dañuy danañuy jëlee avion di ca dem. dañuy dañuy jógee fu nekk di jëlee avion di fi ñëw. ngir barke ngir ut si yàlla. ngir wut si ngir ut si yonent yàlla. ngir wut si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa loolu la nit ñi di uti Makka. loolu noonu nit ñi nag di uti Makka. loolu la ñuy uti Medina. loolu ut si Sénégal gi. ñu ngi koy ut si Sénégal fii ci Saalum. kon yàlla may nañu. kon nag fii yàlla may nañu. yàlla teral nañu. yàlla teral nañu. yàlla nga am ci teranga jooju. yàlla yàlla. xiir xiir ci teranga jooju. nangu ko. ñu jox ko cër bi mu aajo. jox ko cër bi nga xam ne moom la aajo. kon da gis ne yàlla wax na ne. kon da gis ne yàlla wax nañu ne. la in shakartum la azidanakum bu ngeen santee rek ma dolli. waxtu wu leen santee rek. yàlla moom moomu dolli. sant nag du wax rek. moom du wax rek. sant jëf jëf yëpp sant yàlla jëf yëpp nag sant yàlla rek la toog bi ngay toog di añ sax loolu da ngay sant yàlla mu ne toog gi ngay toog sax di añ sax loolu sant yàlla la nelaw bi ngay nelaw sant yàlla mu ne nelaw gi ngay nelaw itam sant yàlla la ndax loolu yëpp jaamu yàlla la mu ne loolu yëpp tamit jaamu yàlla la su fekkee xam nga yàlla su fekkee nag yow xam nga yàlla su fekkee xamoo nag su fekkee nag yow xamoo ah lu la neex nga wax. lu la neex rek nga wax. yàlla nañu yàlla musal. yàlla nañu yàlla musal ci loolu. yàlla yàlla jubbanti suñu làmmiñ. yàlla yàlla jubbanti suñu làmmiñ. yàlla jubbanti suñuy dégg. yàlla yàlla jubbanti suñu xam-xam. yàlla nañu yàlla may. yàlla nañu yàlla may. ñu xam ne senegal ay ñun ay doomam lañ. ñu xam ne Sénégal suñu yaay la. suñu yaay la. nit nag dafa war a bëgg yaayam. nit dafa war a bëgg yaayam.